pétrole baa ngi nii kenn du wax te ñun jeunesse bi am nañ leneen lu ñu war a dund pétrole bi si lañ bokk leneen ak leneen lañ bokk mais dañoo am président boo xam ne nii bët bi pétrole dong la jàng pétrole dong xam ah di wax seer seer Sandaka seer bu Sandaka moom mu ngi jàpp suñu combat bu baax jaakalu airport la man damay sonn damay sonn ak ay ñoom Modou Gueye di la ñuy liggéeyee dëkk sama koñ di ñu jàppale suñu sëriñ suñu ma Mor Mbacke du ñuy ñaanal di wax maam Cheikh Fall mu ndara Fall Macky Sall ñëwoon na ba si moom di ko di ko di ko di ko jooy di mu ñaanal ko ba mu jël réew mi boobu Laay Wade moo toog xam ngeen mbéygay mbéygay gi Laay Wade fekkoon Cap Manuel mooy rarement yooyu Laay Wade fekkoon Cap Manuel jël leen ngir dimbali leen est-ce que Macky Sall mës naa fekk benn maan wala muy dox ne xaaral ma dem fii te Laay Wade da doon dox wàcc sa ndaka di dox. wóor na ku tey ki président musul def loolu laay war a ko def wàcc di dox di xool nit ñi ba xam lu ñuy dundee ak li ñuy naq ak li ak li ñuy loo am na yëmbal kër yoo xam ne boo ko duggee bu ñu añee du ñu reer li sa waay waxoon rek Sénégal la yëpp boo leen boole woon si benn cin si benn cin laa la wax nga ku si bëgg a génn cin li di baax ku si bëgg a génn sa morom lay xëcc ne lu doo génn barke Serigne Touba ndax Sénégal lay baaxuñu. ndax am na ñi nga xam ne nii ba suñu suñu suñu suñu ñu nekk diaspora di liggéey ñii pour rek di toroxal suñu kilifa diine ñu nekk ci diaspora bi ñii ñoo ngi def lu baax ñii ñoo ngi toroxal kilifa diine yi kilifa diine yi am ñun ndax ñoom ñooy projet yu Sénégal ñoom ñooy projet yu Sénégal Sëñ Fallu mooy Sénégal de ku ko ku koy weddi tamit da ngay weddi leneen Sëñ Fallu mooy Sénégal ndax fii ballu bi tàq ballu bi arme du jóg ballu tàq fii fii arme du fi jóg wala du fi tàq mu leer yi mu leer Sonko mu leer autorité yi ñu xamee ne ñun Sénégal am di wax ne Gana Kebe dama lay waat ne nag bu nekkee da ngaa mën da ngay ñëw pour jàppale Sénégalais yi na nga ñëw jàppale suñu yëmbal jàppale ñi nga xam ne nii ñooy ñoom waa yëmbal ñoom lañ ñoom lañ bëgg ndax ñu dañoo ñëw kenn loolu ñu nax muy Modou muy muy muy Modou Mbène muy Amadou Hott muy ñëpp lañ si yemale nu ñu dimbali mais ñu aafiya sonn nañ. fott nañ lëj la nañ nañu dimbali élection mooy jot ku nekk taal sa bu rafet bëgg a ñëw du ñu sonal waaw ay abaa yëmbal leen dëkk ay ñoom ñànk yëmbal leen dëkk dañoo war a toog di wax si biir yëmbal bu ñu bu ñu toog si benn kere rek bañ a wax si biir yëmbal ndax yëmbal lu ñu ñor la ñun yëmbal lu ñu ñor la tey lu fay tàq ñu ñooy jóg ñun xam ne nag li ma lay wax xamoo ko mais waa yëmbal xam nañ la may wax nañ bàyyi di jaxase ay see yi farba naataange benn la cosaan foofu yëpp benn la kenn mënu ñoo jaxasee kilifa yi benn imaam moo ñuy jiite benn imaam a ñuy noddloo ñu kàppaar julli kon ñun ñëpp benn lañ ku dee ku dee sa juróomi mètre percale lay suulee fàtte nañ la alal lépp bi nga bàyyi nañ jàppale jeunesse bi jàppale booy jàppale booy jundu bantisme ñu génn si ñu bëgg nañ see génn président ba kañ jàppale ñu ñun ñun ñun si réew mi lañ bokk yaa taxawoon ne yaa taxawoon ne ku wax. ku wax ne euh, ku wax ne fii ba ngay jël ba ngay nekk si élection yaa taxawoon ne ku neex na def lu mu neex kon nag ku war a ku war a taxaw marche nanga nga taxaw marche ku war a def lu waaye war a def na nga def ndax président moomu réew mi dañ kaa jiital dong dañ kaa jiital dong ndax dafa fàtte ndax kon bu ñëwee biir yëmbal baadoolo la ñu jàppee kon langay ngay yëmbal président jàppale gox bi jàppale jeunesse bi ñun sonn nañ dañoo wax ba maar dañoo wax ba maar waaw